man nag Sénégal mënuma fee am yaram man xoolal sama téléphone bi na nekk sous écoute vocal yeeg yëpp na tas instant yi ñun ci suñu jëmm bopp nag ñoo war a jóg nag jàppalante sa parce que nag comme instant yi nag dañoo toll ci jamonoy weerante nag na yëpp génn kii nga xam ne buy ñëw butéelu Sénégal gi yëpp lay diwoo bu ñëwee xeeñ xunn ubale salon bi dëkk bi nag mi ngi wàcc nag wa kii nag xanaa moom noom noom <laughs> waaw maam góor bi lu ko dal <laughs> kii suite la laal de mais <laughs> nag non foog ñu toog ñun ñëpp ñu ñu ñu waxtaan ñëpp ñëpp ñëppay génn ñëpp ñu ñu mës a jaar suite beauté ñëppay génn c'est parce que lii nag du kaa bu ndaw comme instant yi dañoo toll ci jamonoy weerante ku ci nekk nga taxaw ci tele di ngal-ngali te ñu xamal la loo xam ne bis buñ ko waxee dëkk bi wàcc ah jar na nag ñu defaraat suñu toogaay. kay xuma la mën a sedd waaye dafa mën a duul. maam Goundé Sakho mi nga xam ne Sénégal kenn nawlawu ko. tàkk fay la def carrière am bu gàtt abu ci bëloo sax a ko gën a siiw ki nga xam ne ki kii la kii moom da nga koy jël nga zërëcin ko tegee ko nii ndax mangoor mi xeeñ na bu fa ñëwee salon ba day ubali ñoo mam lool mangoor ilaq ila billaahi wallaahi taalaahi mangoor mii de bu moytuwul boppam fii lay doxee yàqu ba ilaa yow mi diin dañoo pare pour yàq waaye lu yàlla defar kenn mënu ci dara instant yi dañ ci ñaaw rek te yàlla defar na ba pare gis nga bu yàlla rëddee nga effacé mu rëddaat nga effacé da lay effacé rëdd boobaa doo ko fekkee yii saytaane nañ de non Sénégal gii moom instant yi li ma la wax rek moo fi nekk def suñu toq petit association ñëw foofu noonu waxtaan rek la lépp ah man de jaral nga ma lu nekk billaahi wallaahi taala bugguma ay feeñ ci ay média affaire yi mais bu demee nii ba demee nii ba nga xam ne nan ren laa dugal te ñun rek ñoo ci mën a jàpp moom dinañ def le tout bu laajee bakkan sax ñu joxe ko bëgg jigéen. dama dafa bëgg jigéen. jigéen ñëpp ko bëgg man mi joxe yow bëgg naa jigéen ñaari soxna laa mais ak dama lay wax man gis na nit da war a xam li nga war a def ak loo warta def man du am sama ñaari jeeg sama kër dem di tëdd ay salon ay xale yi tuuti ñaar dama lay waa d'accord mais man samay jeeg boobu man dama leen respecté man samay jabar ak may dégg ñu ngi may seetaan man moom dinaa def lépp ba mu des fenn. Mhm. sama papa dama doon wax bàyyi fen moo gën julli. man duma duma dem benn saalu ah, massage man danaa nekk ponkal mu toll ni dem samay xotti taat ay xale yu ndaw di ko gis ñàkk a fayda yow nga bëgg a nekk président naan di dem di tëdd ci ay salon ay xale di gis say xott prés ñun prés président kenn du gis ay xottam. Mhm. waaw Sénégal dëkku dëkku xéewal la <laughs> duñ ko nangu. Uh-huh. est moo fi nekk El Hadj Malick maam Limaamu Laay maam Baye Niass ay kilifa ñoo. salaam salaam sama gaay lu yëngu lu ne lu ko yëngal la ko maam góor jazaaka yow maam góor jazaaka yow sutura dafa baax ci doomu aadama yow yàlla dafa sàkk guddeeg bëccëg pour sutura yow maam góor jazaaka ñu suturaal la suturaal la ba nga xamante ne kenn mësu seenal sa dara maam góor jazaaka amoo dara looy def lu du taxaw ci média yi di wax lan mooy massage yoo xam nga kay yow yow yow rek yaa xam lan mooy massage maam góor jazaaka ak ngaa xam lan mooy massage maam góor lii du sa numéro 77 634 16 95 du sa numéro maam góor toogal toogal balaa ñuy wax maam góor nga xeeñ nga xasaw nga sa rasta xeeñ ñu toog di la ko suturaaral waxuñu yow nga duggul nga naan massage dugg na fii génn fii te ngaa bañ a wax ñaata yoon nga ñu fekk si maam góor nga toog. loolu laay wax nii ki ma nekk ma ne kii nag moo mënoo dul dëgg dëgg dëgg non kii mën na fen de man dama man woon mun fenam gii mais kii mën na fen. kii mën na sax un fekk naa ko mu toog ci akii bi noonu maase wu ko sax Josephine moo ko maase ma yéeg noonu ci kaw ma toog foofu noonu noo kii mën na fen de si <laughs> noo fi naa mën na duul laa ilaha illallah àdduna de lii lañuy wax naan sa ay man nitu tey fi naa nitu tey jaruñu dara man dama yéemu nitu tey jarul dara ko def. voilà dafa bëgg jigéen. dafa dafa bëgg jigéen. jigéen ñëpp ko bëgg man mi ngi waxee yow bëgg naa jigéen ñaari soxna laay. mais dama lay wax man gis na nit da war a xam li nga war a def ak loo warta def man du am sama ñaari jeeg sama kër dem di tëdd ay salon ay xale yi tuuti ñaar dama lay waa d'accord mais man samay jeeg boog man dama leen respecté man samay jabar ak may dégg ñu ngi may seetaan man moom dinaa def lépp ba mu des fenn sama papa dama doon wax bàyyi fen moo gën julli. man duma duma dem benn saalu ah, massage man danaa nekk ponkal mu toll ni dem samay xotti taat ay xale yu ndaw di ko gis ñàkk a fayda yow nga bëgg a nekk président naan di dem di tëdd ci ay salon ay xale di gis say xott prés ñun prés président kenn du gis ay xottam. Mhm. Sénégal dëkku dëkku xéewal la <laughs> duñ ko nangu. Uh-huh. est Sénégal dëkku xéew Sëñ Tuubaa moo fi nekk. Alaaji Malick maam Limaamu Laay maam